Euh, kon ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa <coughs> euh, kon ñu yegg si ci fi ñu doon maanaam li doon mbëmbëstalalee euh, tur yi maanaam asmaa yi insha allahu taala na asmaa kon ci jotaay bi wees kon foofu fi ñu li ñu mujjee woon wax mooy ci wàllu kon istiqaaq maanaam ci tur maanaam fan lañ jukki noonu ci ismu ak ci sima ak euh, maam dañ ci jàngat ak yooyu euh, mu am ci bunt boobu loo xamante ne amaan na foofu lañ ko waroon a leerale muy maanaam baatu ismu ci boppam euh, dafa am ci luxaat yi maanaam luxaat yi nga xam ne ñoom ñoo ci maanaam mooy façon wax yi nga xam ne noonu lañ koy waxee maanaam muy fukk ak juróom-benn maanaam fukk ak juróom-benn non ak juróom-ñett laa bëgg wax maanaam 18 hmm. voilà muy 18 ci euh, ci ci ci ci forme muy euh, ismun dañ koy wax voilà maanaam euh, yëpp ci ci ñoo bokk daanaka racine hmm. voilà ismun sumun hmm, suman maanaam suman siin miim ak alif maqsuura hmm. voilà ismun sumun suman sumatun voilà sumatun euh, euh, sumaatun maanaam sumaatun ak hmm, sumaaun ak maanaam juróom ñii nag euh, muy juróom benn hmm. yoo xamante ne benn bu ci nekk xaraf bu njëkk bi mënef na koo rafo mënef na koo nasab mënef na koo kasra maanaam mënef na koo xam ne maanaam mooy mënef naa wax u comme ismu usmu asmu hmm. ni ñu mën a waxee euh, sumun samun ak simun noonu lañ man a wax et cetera maanaam ba juróom ñetti yëpp jeex maanaam xaraf bu njëkk bi yooyu ñoom ñooy 18 maanaam façon yooyu yëpp boo ci wax rek maanaam baatu ismu lay doon comme ci biir incha allah ni ñuy gisee yenn dañ koy jam nag ci asmaa'u ak euh, Euh, ak al asami hmm? ak yeneen ak yu mel noonu donc euh, loolu moom yooyu jama yi la hmm? euh, waa asmaa u wala ay asami xaal kon yooyu ay kii lañu voilà yooyu aman na moom la ñu war a yokk léegi loolu maanaam ci partie bële lay dugg hmm. léegi kon xam naa ñu fi ñu fi ñu waroon a fi ñu yemoon mooy le fait que tur yi borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne 99 lañ loolu ak xadis yi nga xamante ne moom te daañu ci ñëwaat léegi insha allahu taala ci gën koo gën koo yaatal euh, waaye euh, euh, turu yàlla yi maanaam borom subhaanahu wa comme ni nga xamante ne noonu lañ ko junjee woon ci jotaay bu njëkk bi maanaam dafa am. maanaam turam yi dañoo nekk ci ay maanaam ci ay maratib maanaam ci ay maratib la ñuy feeñe maratib mooy ay niveau ak ay dimension voilà mooy niveau yi wala dimension yi nga xamante ne foofu la tur yi di feeñe tur yëpp bokkuñu martaba yi nga xamante ne foofu la ñu feeñe wala foofu la ñuy génnee voilà loolu moom moo tax maratib yi ñoom ñoo waral feeñuwaay yi comme ni nga xam ne noonu lañ koy wax leeral insha allahu taala maanaam euh, euh, euh, maanaam tur yi benn bu ci nekk maanaam martaba yi nag maanaam comme ni nga xamante ne moom mooy martaba bi njëkk mooy euh, martabat maanaam bi nga xam maanaam euh, euh, mooy xadara bi maanaam ci xadaraat yi xadara bi nga xam ne moom moo njëkk moom mooy xadaratu tams wal ama comme ni ñu ko gis mooy xadara bi nga xamante ne foofu ak far moo fa am ak ak làqu dayok làqu moom mooy ak tamsu wal ama maanaam xadara mooy présence voilà xadara voilà voilà instance instance wala manam hadara bobu fofu borom subhanahu wa ta'ala moom la hadaratu zat la manam hadaratu zat la mom dañ koy xal hadaratu zat wa hadaratu tams wal ama manam moy euh tams wal ama buñ ko don fi naan de l'effacement wala de l'effacement et de de de de du mystère absolu wala euh donc fofu hadara bobu moo tax moo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith Abu Rizin bi radiyallahu ta'ala anhu bu nek sunna imam turmizi rahimahullah ak yeneen mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko laaj ne ko ayna rabbuna qabla al khalq wala qabla an yaxluqa al khalq fan la suñu borom nekkoon lata muy amal mindi fi mu ne kaana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wala tahta wala tahtahu hawa la fawqahu hawa wala tahtahu hawa manam borom subhanahu wa ta'ala dafa nekkon ci ama ama manam Euh, mooy lu làqu dayoog làqu maanaam ndax euh, moo tax al bi ñuy wax euh, niir niir dañ koy wax amaa ndax làq gi muy làq jant bi et cetera maanaam kon ama maanaam borom subhaanahu dafa nekkoon ci dayoog làqu boo xamante ne ci kaw ngelaw amu fa ci suufam ngelaw amu fa maanaam li muy tekki mooy maanaam dans un mystère absolu amul dara dara dara dara loo xamante ne lu ñu mën a kii la ci moom lu ñu mën a am euh, accet ci moom xadis boobu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci wéram ak ñàkk wéram voilà wuute nañ ci wéram ak ñàkk wéram euh, ala kulli xaalin euh, yéen maanaam xadara boobu dañ koy xadaratul tamsi wal dañ koy tamit xadaratul boo xamante ne maanaam ñu ñu koy tuddee ak xadaratu tajallil adami maanaam xadara bi nga xamante ne foofu amul li nga xamante ne maanaam feeñuwaayu borom subhaanahu wa bu neen la maanaam dafa neex. maanaam de manifestation de voilà néant voilà parce que lan motax parce que fofu zat mo fa nek manam zat yalla borom subhanahu wa ta'ala en tant que euh, essence manam mom kesse mo fa nek amul tour amul amul tour amul melo amul naka amul nyata amul fan amul euh, euh, amul amul amul dar manam amul amul luñu ñu askanale amul dara amul amul rapport amul nom amul attribut amul comment ay circonstances amu amul walla amul nombre amul dara maanaam amul lenn loo xamante ne am na rapport ak loolu moo tax xadara boobu moom mooy xadara bu njëkk bi ñaareelu euh, xadara bi nga xamante ne maanaam euh, euh, moom moo am nag maanaam ñaareelu xadara bi moom mooy ci xadara boobu moom mooy ci la ba maanaam muy muy muy ci la ci la ci la ci la ci la ci la feeñuwaay yi mën a amee ak li ñuy wax ak nisabu mooy rapport yi euh, wala attribution moom la ci foofu la maanaam et cetera maanaam foofu la feeñuwaay bi njëkk amee muy muy indi foofu nag la wax ne foofu la mazahir yi di amee yooyu loolu moom moo tax mazahir yi maanaam mooy feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa taala euh, mooy ay apparition yooyu ñoom ñoo indi maraati bi maanaam ndax foofu la borom bi subhaanahu njëkk a feeñe moom moo tax maanaam mu indi maraati bi maraati bi moom mooy euh, mooy niveau yi dimension yi voilà dimension bi nga xamante ne moom moo njëkk ci lañ borom subhaanahu njëkk am woo moom la ñu wax maanaam foofu mooy ahadiya mooy al ahadiyatu maanaam ahadiya euh, euh, mooy mooy monisme maanaam monisme maanaam mooy lan mooy le fait que amul dara lu existé lu dul borom bi subhaanahu wa taala et que foofu noonu euh, dañ koy wax tamit moo tax foofu noonu dañ koy wax xadaratu shuuni dañ koy wax tamit mooy euh, xadara euh, mbir yi mbir yi maanaam bu ñu mbir yi mbir yi et que foofu dañuy wax tamit maanaam dañ koy wax tamit xadaratu tamsi loolu ba xadaratul ama boobu dañ koy xadaratul ama moo tax ñu naan pour différencier ko ak bu njëkk ba ñu naan ko xadaratul ama saani maanaam xadarawu bi nga xamante ne moom mooy euh, làquwaay nëbb voilà hmm? mystère total mais bu ñaareel bi li tax nag ñuy wax ahadiya moom mooy ne foofu dafa amul distinction amul distinction entre benn tour ak moroomam entre benn melo yu borom subhaanahu wa ak moroomam amul distinction aussi entre euh, mbiri. yi Mbiri voilà mbiri yi rek la wax ashuun motax ñu euh, les trucs trucs yi affaires voilà wala mode les modes donc c'est le la présence des modes voilà voilà des trucs des affaires voilà amul l'année parce que lu parce que c'est-à-dire que lu luy loolu moom parce que le fait que turu yalla yi ñoom ñoo waral mbindeef fi et que comme fofu turu yalla yi amuñu ay distinction donc fofu noonu amul tamit mbir yi amuñu distinction moo tax feeñuwaay boobu borom bi subhaanahu wa ta'aala feeñu daf ko feñu ci bopam kese loolu moom moo tax keneen bokkul ci feñu feñoy manam manifestation yim def yëpp ci bopam la ko def loolu moom moo tax dafa nekk benn maanaam amul distinction ci dara lépp yàlla rek la moom rek a fi nekk mais ci nekk-nekkam donc foofu tur amu fa melo amu fa tamit ci ci ci ci ci anam googu parce que amuñu ay distinction euh, léegi mu am beneen xadara comme ni Cheikh Tidiane waxee radiyallahu ta'ala anhu moom mooy xadaratul euh, waxdatul mutlaq maanaam mooy xadara bi nga xam ne euh, Euh, li tax li tax ma tuddu ko dina la ko wax léegi insha allah li tax ma tuddu xadaratul wahdatul mutalaqa bi mo ma tuddu ko fi dina ko wax léegi voilà euh, euh, après insha parce que xadara boobu mom moy après mom moy le fait que mu nek kenn kese foofu nag mooy parce que ahadiya mom motax motax moo ahadiya dañ ko wax tamit xadaratu kunhu zaati kunhu zaati kunhu mom moy kidité voilà la kidité de de de l'essence voilà maanaam quiddité mooy li tax ñu naan nàngam nàngam la loolu mooy quiddité ci ci tubaab mooy concours mooy voilà <laughs> lay tax ñu naan lii mooy nangam wala kii mooy diw <laughs> voilà xam nga tey fi mu toll ki par exemple Moustapha euh, ki tax ñu naan Moustapha bu bu maanaam tey bu ma nee man maanaam bu ma laalee sama dënn sama dënn la. donc du moom moo tax ñu naan Mustafa bu ma laalee sama bopp du tax mu naan Mustafa wala tànk wala loxo bi yëkkati loxo rek taxul ñu naan Mustafa Mustafa maanaam dafa am nit ki nekk maanaam ko loo xamante ne maanaam un ensemble la boo xamante ne soo ko boolee téye loolu mooy Mustafa maanaam kon xadara euh, loolu moom moo tax ci jotaay bi wees ñu mbëmbëstale woon euh, différence bi am entre tur ak li ñu tuddee mbir mi ak jëm mi tuddee gi Madame, non nomination ak le nominer Madame, parce que l'on mo nous ñu de tekantal gi pour meuna pour ñuy mën di gis différence bi déjà voilà parce que buñ né déjà ben ku comme tay buñ né euh radiateur radiateur radiateur fi ni mbir la bu xam nga am na ay éléments yu bari yu ci ne mais moom en tant que am na lu moom ni ñu wax radiateur mais moom radiateur bi tey bu ma gëmmoon bu ma ko xoolee ba gis ko après ma gëmm damay damay gis ne dafa dafa dafa dafa dafa photocopier wu ci sama xel de telle sorte que tey radiateur bi suñ ko fi jëlee woon tey man maanaam mu des nekk sama xel ba tey mais li des sama xel ak lii may gis lii nii du benn ba tey de li des sama xel radiateur la mais du radiateur bi ci jëmmi boppam mais day tegtale ci radiateur bi maanaam day indiquer day pointer ci radiateur bi mais da maanaam quiddité ah, maanaam ci ni mu nekkee comme boobu. nit ki su ma ko tuddee maanaam ne radiateur bu ma neexee ma tuddee ko chauffage ma la taajal taalal radiateur bi wala taalal chauffage bi benn mbir mi la ay pourtant te ànd ak ne moom ci jëmmi boppam benn la ce qui fait tur bi maanaam li ma tudd man.

bobu nonu manam kon ahadiya maanaam moom dafa nek manam lépp lépp manam len rek la hadara mom ñu dellu léegi nag xadaratul waxdatul mutlaqa fofu mom moy ahadiya kon dañ koy mëna tuddé monisme hein wala bu fekkante ne wahdatul mutlaqa dañ koy tuddé de l'unité wala l'unité absolue voilà wahdatul mutlaqa voilà le fait que lépp nek benn bu la neexee tam nga tuddé ko unicité. unicité absolue. est-ce que boo le domaine d'unicité divine loolu terme bobu exactement. waaw euh, voilà voilà domaine domaine non non non pas divine. ah divine ma divine voilà voilà. voilà xadara tam mën nañ ko tuddee domaine effectivement voilà voilà mën nañ ko tuddé tamit domaine effectivement légui wala sphère. sphère voilà légui kon fofu

foofu la ñu feeñee foofu nag kenn dong la fa feeñoo muy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi foofu la xàqatu muhammadiya génne maanaam yent bi sallallahu alayhi wa sallam la fa feeñoo mais en même temps en même temps bi mu feeñoo yent bi sallallahu alayhi wa yent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñi nga xam ne dañ koo donn donn gu mat sëkk ñooñu tamit manifestation boobu da leen di topp ndax ñoom dañu le fait ñu jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wa loolu moom mooy secret bi tax képp ku jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ngay daal di jeex ci borom bi mais ci nekk-nekkam ci zaatam alors que ku jeex ci yàlla maanaam en tant que turam yi parce que ku jeex ci yàlla ci turam yi rek nga mën a jeexe ak nelaw bi bu boobaa doo nekk ki nga xamante ne da ngay jeex ci ci ci ci ci wala ci nekk nekk ya-, yàlla moo tax ci yenent bi nga moo tax boo jeex ci yalla da ngay jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam boo jeexee ci yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam jeex ci yàlla waaye boo ci ci yi ngay jeexe te bu boba fofu da ngay daal nek nekk ci taqyid batay da ngay nekk ci tënku lolou mom motax wahda hadratul wahda mu nek lo xam mutlaqala dafa dañ ko doyal amna ño xamantene hadratul wahda rek lañuy wax am na ñoo xam ne comme Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dañ ciy boole al mutlaqa ngir gën a préciser maanaam le fait que jeex googu nekk lu absolu maanaam le fait que unicité boobu nekk lu absolu euh, foofu léegi après mu am beneen xadara boo nga ne waaxidiya la mais xadaratul waaxidiya boobu boobu tam nañ ko bàyyi xel maanaam kon tudd nañ axadiya tudd nañ lan waxdatul mutlaqa tudd nañ lan mais dignité, wahidiya, unitaire madame l'unité unitaire le fait que y nek un et un seul voilà un et un seul mais kenn kese ce qui veut dire que ci xadara bobu turum yek melom yépp ben lañ manam turum melo ci voilà mais euh, boo xoolee kon mais ci diggante bi ci diggante bi am na beneen martaba boo xamante ne ginnaaw martaba waaxidi maanaam waaxidi gi maanaam euh, waxdatul buy waxdatul mutlaqa am na beneen martaba maanaam martaba boo xamante ne moom parce que benn bu ci nekk baatinu morom mi la maanaam ahadiya gi moom mooy baatinu wax waxda bi waxda boobu moom mooy baatinu euh, huwiya huwiya manam yalla le fait que muy huwa moom le fait que muy mom l'ipséité c'est-à-dire qu'on wala moom la en français l'ipséité c'est-à-dire mom buñu ñuy mom et que ipséité gogou manam mooy huwiya gi mom moy mom mo gëna laqatu làqatu inniya gi manam le fait que yalla nek ne ne man c'est-à-dire que la mi ngi commencé génn ci làqatu di ñew ci feeñu naan man dégg gis nga kon martaba yi ni mu toftalante mm-hmm. et que toftalante googu euh, indi moo tax indi yéegi nag moom mooy baatinu waaxid yéegi ma doon wax léegi nii yent bi sallallahu alayhi wasallam nag euh, borom subhaanahu wa taala mi ngi junj martaba boobu ci mi'raaj bi mu def moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam moo njëkk rañaan ñépp ci as ca ca ca ba dara xewagul ca ba dara xewagul rañaan bii mu rañaan fii lii lenn la ci rañaan gi mais borom subhaanahu wa taala rañaan googu mu ngi koy junj. ci manam ñu ngi tuddu rañaan gi di di di rañaan gu njëkk ga nga xamantene mom la defoon ca ba dara amul moy lan summa dana fatadalla fa kana qaba qawsayni aw adna mom borom bi subhaanallah mu sóortu manam bi maanaam mu naan mu yent bi sallallahu alayhi wasallam summa manam euh jegeñ na yàlla waaye fatadalla waye mu waccat manam moy ñaari mbir c'est-à-dire que te d'ailleurs caractéristique et en même temps caractéristique euh, awliya al muhammadiyuna manam ñi nga ne waliyu ñi dañ doon à 100% le fait que mu le fait que mu tout le temps tout le temps tout le temps di ci ndax wa ila rabbikal muntaha fa sa le terminus bi c'est-à-dire que donc ji jëm ci sa borom fa la terminus bi amul kon terminus bi er existé wul ci benn affaire maanaam foog da ngay dem rek amul amul fu mu yem comme ci sa borom la jëm amul fu mu yem da ngay dem rek moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tout le temps mi ngi yéeg di dem ci boromam maanaam tout le temps mi ngi gën a yéeg ay maqaama tout le temps mais loolu kenn du ko am lu dul maanaam ku ko am mooy ki nga xamante ne dafa dafa dafa nekk koo xam ne jeex na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam balaa muy génn àdduna parce que sinon booy génn àdduna fa la sa lépp di yam mais su dee da jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam avant ngay génn àdduna moom dootoo amati arrêt da yéeg rek foo toll da yéeg rek moom la moom mooy mooy comme li sëñ Maodo géntoon euh, euh, Alaaji Mansour radiyallahu nee na dafa gént alaaji Mansoor euh, euh, ñëw euh, nee neena mu wara dem and ak mom mu wara and ak mom dem bu koy netali papa ma aladi abdaziz radiyallahu nee na ma ma ma ko man dal dama gënt sama papa Mansoor mais comme mom papa la ka daan wax parce que xam nga mu lañ ko lañ leen mm. ko mu ne ko mu gént ko mu ne ko muy muy préparé quoi mu non ko papa yow lay xaar nañ dem waaw ma ma nee na may may kii rek ma gis ko nag moom muy dem mais bi muy dem mu papa kii euh, alaaji Abdou ne xaaral ma wax la nu mu demee <laughs> mu ne ko waaw mu ne ko da nga ko gis muy dox muy tëb comme ni ramatu di tëbe picc mu ne ko waaw kay kon yow di nga mën a firi sama gént <laughs> parce que bu yooyu dama gént dina ko nettali nga firi nga ne nga wax ma ni mu waaw <laughs> mu ne ko waaw kay mu ne ko loolu daf lay wax ne la bi mu fi jógee ba léegi dañul di yéeg ci ay maqaama loolu la la bëgg a wax <laughs> voilà maanaam loolu mais loolu ñi koy am mooy ñu jeex ci Yonent bi sallallahu avant ñuy génn soo ko defut rek doo ko doo ko mën hmm. euh, léegi loolu moom indi euh, kon hmm, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu yéeg tout temps mais en même temps maanaam moom dafa en même temps dafa def sens inverse bi c'est-à-dire que mbindeef yi ci des yëpp ñoom tout le temps seen objectif mooy nan la ñuy def ba yéeg ci yàlla mais yent bi sallallahu moom ci départam la fekk yéeg na li muy yéeg ba pare léegi nag yàlla yónniwaat ko muy wàcc loolu mooy sensu rasulullah maanaam la fait que yàlla yónniwaat ko ci mbindeef yi muy wàcc mais mbindeef yi ci di ñi mbindeef yi dañuy dem di di jëm dem maanaam yonent bi sallallahu alayhi moom ak wàccam mooy jëmm yéegam moom ak wàccam mooy jëmm yéegam loolu moo tax muy wàccaat ci mbindeef yi nag maanaam di wàccaat c'est-à-dire que ñaar yooyu ñu leen mën a boole cumuler leen sans que benn bi am effet ci beneen bi ñooñ ñooy awliyaal muhammadiyuna ñoom loolu mooy seen caractéristique ñi nga xam ne dañoo mat sëkk ci yonent bi sallallahu alayhi donn ko à cent pour cent c'est-à-dire que ni ñuy mën a nekkee ak yàlla di mën a nekk ci ci maq ci ci ci ci ci ci contemplation ak seen borom subhaanahu ak ci à 100 cent ci lu ne saa su ne noonu la ñuy mën a dundee ak nit ñi mel ni comme si de rien n'était cest à diir que euh, noonu la ñu mën a nekk nit ñi maanaam di waxtaan ak ñoom ci seen affaires yi ci seen problème yi di waxtaan di kaf ak ñoom di kii ak ñoom et que même moment boobu ñoom ñi ngi ci jàkkaarloog seen borom maanaam ñi ngi yéeg c'est-à-dire que voilà donc. Euh, euh, voilà <laughs> euh, kii bon lolu caractéristique la ci ci ci afrad yu makki voilà ci afrad yu makki lolu sen caractéristique la mooy ñi doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam à 100 voilà dañ leen di wax afrad en fait ñooñu amuñu maqama mais dañ leen di wax rek afrad parce que loolu rek lañ leen mën parce que lañ singulier euh kenn ku ci nek kenn la donc motax ñu leen di wax afrad mais dans ci sens beaucoup léegi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la mu ne fa kaana mu mel ni qaaba qawsayni comme ñaari juñ maanaam arc yi ñaari arc yi ni ñuy dajaloo noonu mu ne aw àddina wala lu ko gën a jege ah xam nga arc yi ni ñuy mel nii maanaam ñaari arc fi ñuy tase buuy ñu mm-hmm. fi ñuy tase gis nga ni mu jege wantoo mm-hmm. borom bi ne noonu lañ mel mu ne aw adnaa wala lu ko gën a jege ñaari arc yi nag maqaama yooyu moom mooy maqaama axadiya gi ak waaxidiya gi axadiya gi la ak waaxidiya gi mu ne aw adnaa maanaam mooy li leen boole aw bi du du du sakk du sikki sàkka mais li leen boole ñoom ñaar ñaari maqaama yooyu mooy maqaama waxda gi waxdatul mutlaqa gi moo tax yent bi sallallahu alayhi nekk en même temps incarné waaxidiya gi et en même temps incarné aussi ahadiya gi ci beneen côté au moment où moom mooy secret yàlla voilà en même temps donc ci buntu boobu loolu moom moo tax moom ci boppam mu jeex ci yàlla mu lool moom indi ahadiya voilà donc maanaam kon mu boole ñaar yooyu loolu loolu la moom loolu lay lool lay ci foofu noonu léegi Si xolé madame ye mon bi après amna benen martaba niveau moy martaba bi ci mom martabatu euh, c'est-à-dire euh, suñu nous suñu yaatalé unicité bobu suñu ko yaatalé de telle sorte que nous mu des day day accessible day Euh, euh, waaw day gën a nivelé wu voilà day gën a accessible day gën a nivelé wu euh, ci biir tur yi ci biir maanaam tur yi yi ci nekk day gën di am détail di gën di précis léegi wax daaniyee googu moom mooy baatinu maanaam mooy kon ci beneen martaba bi ci tegu mooy martaba farda fardiya fardiya mooy mooy le fait que borom subhaanahu wa ta'aala nekk càppaaculi mooy mooy singularité voilà donc euh, niveau dimension singularité borom bi subhaanahu wa taala mom après moy benen martaba bi ci suufam après bobu martaba bobu mu am benen martaba moy fardaniya manam moy borom subhanahu wa taala en tant que singuli sing manam mu am singularité mais singularité bobu mu mu propager wu yaatu ci mbindeef fi de telle sorte que voilà mu mën a nekk lu ñuy ràññee ci mbindeef comme ni ñu ko waxoon ci jotaay bi weesu borom subhaanahu wa ta'aala daf ñoo créé ñun dafa dafa nekk koo xam ne dafa singulier càppaacoli mais aussi ci biir loolu ci la defee ñëpp mbindeefam yëpp kenn ku ci nekk nekk kenn c'est-à-dire que kenn ku nekk ci ñun mënoon na la di dupliquer nga nekk ñu bari mais deful loolu li mu def mooy kenn ku nekk ci ñun daf la def nga nekk kenn kese kenn ku benn atum bu ne mu def la kenn te loolu ci martaba yi la amee maanaam ci martaba yooyu la amee maanaam kon fardaaniya googu te loolu dinaa ci ñëwaat léegi insha allah ci ci bu ñuy wax ci ci ci ci ci loolu lan la impliqué moom ci loolu lan la lan la impliqué moom maanaam fardaaniya googu moom mooy moom moo moom moom après beneen martaba bi ci suufam c'est-à-dire que donc moom mooy euh, martabatul uluhiyya mooy divinité foofu rek la divinité ñëwee. c'est-à-dire que imagine nga bu ñu wax ne huwiya yàlla la fait que mu am ipséité c'est-à-dire mu nekk moom làqu dayak làqu boobu noonu euh, uluhiya moom mooy zahiram et comme ni ñu koy wax huwa ni mu nekkee za baatinu allah ak allah ni mu nekkee zahiru huwa maanaam ngay gis euh, euh, ne maanaam ne ci seen diggante gi yaatu ñoo moo nekk seen diggante te mooy yi ñu wax ni uluhiyya gi manam moy kon divinité le fait que yalla yelloo ñu jaamu ko moom mu am relation particulière ak mbolam yi te moy mom rek lañ wara jaam euh martaba bobu martaba bobu am martaba bu ci te te parce que uluhiyya gi moy divinité bi yalla ci comme comme ni, dafa daf cee boole rahmaaniya mooy le fait que mu am une miséricorde maanaam yërmandeem yaatu yaatuwaay wax ne mooy euh, le tout miséricordieux cest à que la la la la miséricorde absolue mooy rahmaaniya gi nga xamante ne kon dafa ëmb mbindeef yëpp la làmbu yëpp foofu la niveau arache ñëwee arache moo tax li ko dalee ci arache ba foofu yëpp nu martaba boobu moo fay dox mooy rahmaaniya gi moo tax ma rahmaan arash istawa comme ni ñu koy waxee insha allahu taala bu ñu yegsee ci tur ar mais rahmaaniya gi nag moom mooy léegi am na beneen martaba bu nekk ci suufam maanaam kon da gis ne gis nga ba yële ci kaw ba yële ci kaw maanaam ci ngay comprendre ni mu kawewee ak le fait que nit nit bu bëggee évoluer ba weesu foofu dafa jafe maanaam <laughs> voilà contemplation ci niveau boobu dafa dafa dafa difficile du du ay fo du ay caaxaan. maanaam ay ay ay ay ay ay ay ay su ma sañoon mayu ko ah voilà ak a neexoon yooyu mayu ko maanaam <laughs> niveau la boo xamante ne balaa nit ki di fa yegg c'est c'est quelque chose voilà euh, rahmaaniya gi moom maanaam le fet ko kon yërmandeem di tasaaroo ci lépp ba tax mu amal lépp lépp nef yi et cetera yooyu martaba bi suufam moom mooy euh, rabbiya hmm. le fait que mu nek rabb la seigneurie manam mom minde fi di leen réparer di leen yéwénal di leen jañ di yar di leen tàmbale amal ci tàmbali gi ba fa ñuy et cetera di top seen mbir mbiri moy rabbi ya rabbi ya manam menam meneen martaba moo nekk ci moy moy mulki ya le fait que yalla nek malik bou, parce que bo moy niveau bi moo tax loolu tamit beneen niveau la buy feeñ euh, euh, euh, moo tax ngay gis nit ñi souvent lu ëpp ci ñoom ñuy gën a gaaw a gis borom bi subhaanahu wa suñu parce que niveau yi ñuy tudd yépp benn bu ci nekk nit ki maanaam feek weesuwul beneen bi hmm. contemplation bi muy def mooy mushahada contemplation bi muy def ci benn niveau bi du du dem ci beneen niveau bi loolu moom mooy indi loolu moom mooy indi ngay gis ne nit ñi maanaam euh, nooteelu yàlla la ñu gën a gaaw a gis maanaam ak ay ay dumam wala boog le fait muy wane en tout cas nguuram la ñuy gën a gaaw a gis que bu fekkente ne dafa dafa doxal ak ñoom rek ci yërmande kese souvent loolu noonu da ngay gis duñ ko gaaw a gis. moo tax ngay gis par exemple yéefiri borom bi subhaanahu wa ta'ala di leen wërsëgal di leen xéewalal saa su ne mais duñu ko gis mais bis bu ñu amee problème rek dëgg vrai nga gis ñu delluwaat ci parce que foofu borom bi daf leen feeñoo ci nguuram le fait que muy buur roi la royauté. dominateur voilà. domination bi royauté bi et cetera. donc mulkiya googu moom moom mooy euh, mooy moom ba bi nekk ci suufam mooy al euh, mooy al euh, al asmaa ul nafsiya bi. Hmm. voilà mooy asaba yi mooy juróom-ñaar yooyu nga xam ne moom lañ jutoon te ñooy asmaa nafsiya moom mooy yàlla moom mooy xayu kiy dund. dundam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam ah al-alimu mooy ki xam lépp parce que moo tax yooyu yëpp nit ñi dañ koy xam ci yàlla ci lu gaaw ak xaj euh, ah euh, euh, mooy xadiiru ki am kàttan am kàttan ci lépp mooy sami'a mooy di dégg lépp basiiru mooy di gis lépp ah ak lan muriidu mooy ki mu am volonté ci lépp ba pare moom mooy mutakallimu di am kàddu yooyu nag ñoom ñoom ñooy ñoom yi martaba bi nekk ci suuf ci seen suuf mooy asmaul jalaali asmaul jalaali moo nekk ci ci suufu asmaul husna asmaul no asmaul nafsiya nafsiya bi moom voilà asmaul nafsiya donc yooyu ñooñu martaba boobu moo nekk ci suufam euh, beneen martaba bi nekk ci suufu loolu asmaul euh, jala jalaal moom mooy majesté yi muy feeñalee ay dumaam ak yu mel noonu voilà <laughs> voilà après yooyu yi nekk ci seen ci martaba bi ci des moom mooy asmaul jamaal yi mooy tur yi nga xamante ne ñoom ñooy taaram voilà moo tax ngay gis taar gi moom la nit da ngay gis ñu bari dañ koy xam maanaam naturellement même yéeféer yi sax dañ koy xam le bon Dieu la ñuy wax le voilà lu kii yooyu la xam maanaam dañ koy xam voilà euh, moo tax niveau boobu léegi nag euh, euh, ci moo tax ci ci yooyu ci la maanaam martaba yooyu nag selon martaba bu ne Euh, ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo exiger maanaam ñoom ñoo indi li ñuy wax lu ñuy tuddee muqtadayatul kamal li ñuy wax muqtadayatul kamal c'est-à-dire li nga xamante ne moom mooy waral di wane matu borom bi subhanahu wa exigence yi nga xam ne matu borom bi ñoo ko indi maanaam martaba yi ñoom ñoo ko ware ñoom ñoo ko indi le fait borom bi subhanahu wa ta'ala nekk ku mat sëkk ci martaba bu ne lu nekk moo tax lu ne da nga ciy gis matuk borom bi subhaanahu wa taala parce que martaba bu nekk dafa dafa dafa pro dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa jur benn ci yooyu marta muqtadayaatul kamaal yooyu nag ñoom ñoo waral suun yi suun yi ñu doon wax sànq mooy les modes les trucs les kii le fait que suun yi kon loolu moom moo indi comme yàlla liy waral liy exiger ay matam du ñu jeex du ñu jeex amuñu fu ñu yam amul fu mu yem loolu moom moo waral que ni suun yi amuñu fu ñu yem c'est-à-dire que les trucs les yi mode yi yooyu nga xamante ne yi yi am yi nga xamante ne yàlla feeñal na ci mbindeef yi maanaam génn nañ nekk ay mbindeef wala génnuñu yooyu du ñu jeex dañoo bari moo tax borom ne kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu jot yàlla mi ngi ci ay mbir cest à comme ni imam euh, Seydina Xadar Asa firé woon imam Ar-Rafi radiyallahu ta'ala anhu xadis boobu. Hmm. wala boog boobu. ne parce que dafa dafa gént daf benn jour dafa toog di jàngale benn waay ñëw moom ar-Rafi euh, ar-Rifa'i Ahmad ar-Rifa'i moom mooy sëriñu tariqatu Rifa'i Rifa'i benn tariqa la boo xam te ne seen sëriñ moom mooy sëriñ Ahmad ar-Rifa'i euh, bokk na ci liñ ko xamee maanaam ay ngëneelam yu mag yi moom mooy euh, siiw na ne dafa ñëw ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xabru bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi génne loxoom moom mu fóon ko voilà imam ar-Rifaa'i boobu radiyallahu anhu def loolu ma sa jàngale jàngale am benn waay bu ñëw taxaw ne sëriñ bi man dafa am lu may laaj mu ne ko waaw mu ne ko kullu yawmin huwa fi sha'nin moom lu muy tekki yàlla nee na bis bu nekk mu ngi ci ay mbir maanaam loolu teg xam moom xam na ne parce que d'ailleurs li tax affaire bi gagloo ko maanaam affaire bi gagloo ko mooy ne xam na ne tout le temps yàlla nekk ci ay préoccupation mu koy occuper loolu mënta ne loolu parce que loolu ñun la mais <laughs> léegi kon loolu lan la war a tekki et day mel ni kon euh, day day day day def yu bees yoo xamante ne amul woon moom xamu ko woon existe mu koy exister wala mu ciy préoccupé wu léegi ce qui léegi nag mu ne loolu daal mu ne ah mu daal ne waaw loolu de xaw ma ko bi mu demee mu ne mu ne ko kon maa ngi dem ba beneen yoon mu dem gént yent bi sallallahu alayhi ci guddi gi yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko euh, kullu yawmin huwa fi sha'n boobu ki la ko doon laaj kooku Seydina Xadir la alayhi salaam wala yu xadar la alayhi salaam moom moo la moom moo ñëwoon di la laaj laaj boobu mais tontu bi mooy su shu'unun yubdiha laa shu'unun yabtadiha ay mbir la yu muy yu muy feeñal bis bu ne yàlla dina am lu mu feeñal ci mbir yi lu bees par exemple tey temps bi nga xamante ne moom la def climat bii ni tey la mu samte dootu amati c'est-à-dire que euh, bis yi ak guddi yi li ñuy nuroo nuroo nuroo ci biti am nañ ay différence yu mag a mag a mag ci sen réalité ci ci niñu amé amee. avec comme tey hmm. tey on est le 2 décembre. 2015 hmm. 2 décembre 2015 dootul amate voilà dootul amate euh, exactement. xanaa 2016 2017. voilà voilà 2015 dootul amati. dootul amati voilà. Hmm. bonopi bonopi c'est-à-dire que ngelaw ni mi eufé ëffee. Euh, euh, nuage yi ngay gis ci ci bë ci ni muy kiiwee biddiw yi ni ñuy feeñee. et cetera maanaam yooyu yëpp amate manam ni muy démé exactement dootul amate ak temps bi muy def ni muy seddee ni muy kiiwee boo xoolee tout le temps dina am différence moo tax loolu nag mu ne kon euh, ay mbir la yoo xamante ne da ko da ko da ko da ko da koy feeñal mais du mbir yi muy tàmbali tout le temps mu ngi ci ay mbir maanaam tout le temps mu ngi feeñal ay mbir lay tekki léegi nag loolu bi mu demee xëy dem euh, di toogaat di jàngale ka ñëwoon keroog ñëwaat <laughs> te ñëwoon uh, ca ca ca ca démb sa ñëwaat bi mu ñëwaatee ni ko waaw sama tont sama laaj bi moom loo ci xam mu daal koy tont tont li mu ne ko salli ala man allamaka jullil ci ki la ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam <laughs> voilà yent bi sallallahu na ko voilà kon uh, borom subhanahu wa ta'ala kon day feeñal ki yooyu léegi tur yooyu mu tax maanaam mooy uh, kon Euh, euh, euh, comme kon suun yu bëri yi maanaam mbir yooyu yëpp nga xam ne dañoo bëri bëri bëri bëri yooyu ñoo waral tanazulaat yi maanaam le fait que borom subhanahu ne ta'ala di wàcc di am benn descente maanaam di parce que di pour pour parce que su descente su amul descente boobu maanaam wàcc boobu pour am mi rencontre entre moom ak suun yooyu suun yi duñu mën a maanaam du du du mën a maanaam manifestation yi duñu mën a am loolu moom moo tax tanazulaat yooyu mi rencontre yooyu moom moo waral tana moo waral tajalliyaat moo waral tajalliyaat yi tajalliyaat yi moom mooy manifestation yi théophanique yi maanaam borom subhaanahu wa ta'aala di feeñu nag dëgg-dëgg mais feeñu yi muy di feeñu ci lu ne à travers euh, descente bi muy def par rapport ak euh, euh, truc bu ne mbir mu ne lenn lu ne atome bu ne particule bu ne tajalliyaat feeñu bi muy feeñu moom moo waral sifaat yi am. maanaam mooy meloy borom bi parce que yooyu su su su su deful manifestation melo bi du am melo boobu nag moom moo waral moom moo indi tur am parce que melo moom mooy maanaam moom bu ne waa ji di fajaate moom mooy kii faj mooy médecin ki nga xam ne mooy jàngale moom lañ naan jàngalekat kii di enseigner moom lañ naan enseignant maanaam moo indi le fait attribut wu enseignant di am ci moom moom moo indi ñu naan ko enseignant ki nga xamante ne moom day yëngatu ci médecine maanaam day fajaate day day remède moo tax ñu naan ko médecin ki nga xamante ne moom mooy mooy mooy mooy def liggéey mooy mooy euh, euh, euh, lan moom mooy wat wat nit ñi ah coiffeur waaw mooy coiffé gars yi moom noo tax ñu naan ko coiffeur et cetera maanaam borom bi subhaanahu wa loolu moo indi tuur yu bëri kon tuur yi foofu la ñu génnewee voilà mais dafa nekk de telle sorte que tur yooyu dañoo indiwaat li nga xamante ne moom mooy mazahir yi maanaam le fait que borom bi ci boppam subhaanahu wa taala di di di di feeñaat maanaam tur bu nekk day waral ak feeñaat et que kon boo xoolee te mazahir yooyu ñu tàmbale woon mooy feeñ googu apparition boobu ci moo indi woon maraati bi martaba yi ñu doon wax ce qui fait que bi dafay nekk benn boucle boo xamante ne du du maanaam en en maanaam au final amul lenn loo xamante ne mës na fee deñ maanaam lépp daf fee mës a nekk moo tax borom nekk nekk azali abadi maanaam nekk koo xamante ne masul deñ di am dans la prééternité wala dans l'antériorité absolue ni ki noonu du deñ di am dans l'éternité dans la postériorité absolue voilà. donc du coup vous hmm. euh, les noms d'Allah ah. leur origine dans ces différentes manifestations. Voilà, voilà, c'est ça. une origine de cette manifestation par exemple vous manifester en tant que tel ni tout que voilà manifester en tant que lui, nous tuddee au fur et à mesure. voilà mais en ak dañuy indiquer ci bi essence nekk-nekk nekk-nekk hmm. la. lolou mom motax ñu doon wax ñu ñu ñu ñu entre différence bi am entre tur bi ki ñu ko tudde ak li ñu tudd parce que boo comprendre yi loolu di nga gis ne le ko que tur yi bëri du tax nekk kenn ki bëri maanaam du tax nekk nekk gi bari le fait que benn waay ñu naan ko Moodu di ko tuddee saawaay di ko tuddee sàmba di ko tuddee loolu. tax il kenn. Mm. voilà di ko tuddee di ko di ko di ko tuddee euh, euh, euh, jaaykat bi. di ko tuddee ah papay diw. papay diw voilà yooyu du tax mu bari. Mm. d'ailleurs ñun ñii ñëpp daanaka noonu lañ mel kenn ku ci nekk ñoom ah <laughs> voilà donc kon loolu. Euh, loolu déjà benn aspect la boo xamante ne bu bu mat a bàyyi xel parce que suñ ko xamee suñ ko comprendre dañuy comprendre lu bare bare bare ci ci xaqeeku tur yi et que kon tur bu nekk gis nga ci maratib yooyu ñu doon junj sànq ak ci le fait que muy indi muqtadayatul kamal yeeg yooyu ak mu waral et cetera léegi kon mu des euh, tur yi ci seen bopp tur yi ci seen bopp maanaam. ñu ñu war leen a kii borom bi subhaanahu wa taala tout le temps maanaam bu ñu xoolee borom subhaanahu wa taala wax na ci sóortu xashr bu ñu xoolee ci njëlbéen gi wax na ne yàlla maanaam am na ay tur yu mu lim ne moom yàlla mooy kooku naan wallaahu rahma ah daan ne wallaahu alladi laa ilaaha illaa huwa daan ne aalimul ghaybi wa shahaada daan ne huwa rahmaanu rahim rahmaan mooy rahim daan ne wallaahu alladi laa ilaaha illaa huwa mooy almaliku alqudduusu salaamu mu'minu muhayminu azizu jabbaaru mutakabbiru daal subhaana allah ma yushrikuun huwa allah daal ni xaaliqu baaru musamir daal ni lahul asmaul husna maanaam mooy yeggaleel ñeel na ko tur yi ci des yëpp kon tur yooyu boo ko xoolee da ngay gis kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi ñu wax 99 dafa ñëw ci ay riwaayaat yu bari moo tax am na benn kii boo xam borom xam-xam yi rahmatullah dañoo wute Nous difer une am divergence yu bari ci ci ci tour yi ci tour yi kenn ku ci nek da nga parce que masala boobu mom la ñu wax la amul yenenbi sallalahu alayhi wasallam ko comme ni nga xamantene non la non la non non non lañ koy leral legi inshallah taala parce que dañu ben euh liste liste bi dama ko dajale woon ci bindu euh, ci xadisu euh, al imam at-Tirmidhi rahimahullah ci xadis boobu mu indi ak ak ak euh, al imam ibnu Maaja rahmatullah alayhi maanaam ñoom ñaar ñoom ci waa kutubu sitta asxaabu kutubu sitta maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo indi juróom benn téere yu juróom benn téere xadis yi ñom ñaar rek ñom ñoko ci solo ñom rek ñom rek ñom ñoko ci ñom ñoko ko ci sen yi <coughs> euh, kon ñom al euh, imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ci Fathul Bari def na ci benn baxsu bo xamantene bu bu xoot la bu yaatu la ci ci ci masala bobu manam ci ne al asmaul husna ah, ak li nga xamantene mom la ci borom xam wax han ah, rahmatullah alayhim voilà bu fekkente ne riwaaya bi nga xamante ne moom la al imaam al xaafi euh, kii euh, at-Tirmizi euh, rahimahullahu taala indi ci ci sunanam voilà moom wala bokk riwaaya yi ñu ciy faral di indi yëpp moom mooy riwaaya Abul Walid bi Abul Walid ibnu Muslim rahmatullah alayhi yent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam imam at-Tirmidhi daan ne haddathana Ibrahim ibn Yaqub al-Juzajaniyu voilà al-Juzajaniyu qaala haddathani Safwan ibn Salih qaala haddathana al-Walid ibn Muslim mooy bi ñu doon wax léegi nii al-imam Walid ibn Muslim voilà rahimahullah moom mu ne haddathana Shu'ayb ibn Abi Hamza an Abi Zinad an al-A'raj maanaam Abi Zinad Abi Zinad mooy Abdurrahman ibn Hurmuz rahimahullah moom wala bok no a a déedéet Abu Zinaad déedéet du moom al-A'raj mooy Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj rahimahullah ah ni moom ñoom ay sëriñu kii lañu maanaam Abu Zinaad sëriñu imaam Maalik la. rahimahullah moo tax wax naan wala xadis bi asaxul am na ñuy wax ne mom moy moy hadith bu jóge ci imam malik ate Abu Zinaad. ñëw ci al A'raj jël ci Abu Hurayra radiyallahu anhu mom jël ko ci Abu Hurayra ta radiyallahu anhu no qaala mu ne qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yent yàlla Muhammad de sallallahu alayhi wasallam nee inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma mi'atan ghayra wahidatin man ahsaha dakhala al janna manam yàlla amna 99 quatre tours muy téeméer bu manqué benn comme ni ñu ko waxee woon ci jotaay bi weesu jotaay bi weesu leeraloon nañu masala boobu ne téeméer yi manqué benn tegtalewul ne téeméer yi maanaam euh, voilà li muy tegtale moom mooy ne euh, euh, maanaam mooy amul mafhumul adat voilà maanaam mooy ne 99 la yoo xamante ne 99 yu ñoo xam la mu ne képp koo xamante ne mokkal nga ko da daal di dugg aljana képp koo xamante ne wala peex nga ko da ngay daal di dugg aljana 99 yooyu nag waxoon nañ ne du yoo xamante ne yu ñu yu xam la yu ñu ne yii yii rek la du yeneen voilà léegi mu ne huwallaahu moom mooy yàlla mooy allazi mi nga xam ne laa ilaha illa huwa amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg ku dul moom daal di wax gis nga comme ni xadis yi wax maanaam loolu moom moo tax ñu xadis bi borom xam-xam yu bari rahmatullah alayhim gën koo jàpp manam me dinañ ñëw ci taxriiju hadith bi legi mu lim mu ne moy parce que dañu dañu dañu gissone ne lim ko dina am dina am solo manam lim len ñom ñi mu ne arrahmaanu arra maanaam la huwa mu ne huwa mu ne arrahmaanu arrahiimu almalik almaliku alquddus assalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabbaaru almutakabiru alxaaliqu albaariu almusawiru alxafaaru alqahaaru alwahaabu alrazaqu alfataaxu alalimu alqaabidu albasitu al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 المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ما نم يو للم ليك إمام الترمذي دار قال أبو عيسى نعم مم الترمذي نعم هذا حديث غريب حديث بي حديث بتم رانكلا ما نم بس كغريب ديتكي فرد مي ديتكي نه دفا دسي وير ndax dafa tumuranke te mu ne xaddasanaa bihi xayru xayru waaxidin amul am na ñu bari ñu ma ñu ñu ñu ma ko nettali yu ñu ko nettali jàngal ñu ko an Safwaan ibnu Saalih parce que waxoon nañ ne maanaam Safwaan ibnu Saalih moom mooy ah, moom mooy ki nga xam ne moom ci ci maanaam moom moo ko jëlee ci Abul Walid ibnu Muslim kooku nañ ko bàyyi xel parce que daf ne Ibrahim ibn Yaqub al-Jawzani moo ñu ko nettali moom mu ne Safwan ibn Salih moo ñu ko moom sëriñu sëriñum mooy Safwan ibn Salih léegi nag mu ne am na yeneeni sëriñ ma ko jàngal jële ko ci Safwan ibn Salih boobu dégg mu ne euh, mu tekki ne wa huwa thiqatun 'inda ahli al moom nag wóor la ku ñuy bàyyi wax xel waxam la ku ñu ku ñuy doyloo ay waxam la fa borom xam-xamu xadiis yi ñoom dañuy doyloo ay waxam mu teg ci ne wa qad ruwiya haadha al-hadiis min ghayri wajhin an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa xadiis bi soloo nañ ko lu baree bari maanaam eh, eh, xadiis bi soloo nañ ko ci ay côté ci ay façon yu bari yu dul yi façon yu baree bari parce que am na bu ma la maanaam waxoon naa la ci jotaay bii weesu ne imaam al Buxaari rahimahullah imaam Muslim dañ ko solo rahmatullahi alayhi ne dafa dañ da ah, dama ne inna allaha inna lillahi tis'ata wa tis'una isman al mi'atu illa waaxid daal ni man ahsaaha daxala janna wa innahu witrun yuhibbul witra maanaam ci riwaaya boobu am na ci beneen riwaaya mu nekk Sahih imaam Buxaari mi ngi tamit ci Sahih imaam Muslim rahmatullahi alayhi mu ne man hafizaha ku ko mokkal dinañ mën ahsaha ku ko peeg maanaam hafiza tamit comme niñ ko waxee day tekki wattu aar ah. kon képp koo xam ne daf leen a jël xam leen incarné leen jël melo yu tuut nuru ko day dugg àjjana 99 yooyu nag maanaam ñoom imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi ñoom foofu la ñam ci ba pare ni borom bi day witar la maanaam dafa tóol yuhibbul witra dafa bëgg lu tóol tóol mooy lu impair moom dafa impair bëgg lu impair loolu tamit waxoon nañ li muy tekki firi woon nañ ko ci jotaay bi wees mais loolu yent bi sallallahu alayhi wasallam wax maanaam imam Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi ma ñoom bi ñu solowee xadis bi foofu lañ yem ci xadis bi maanaam solowuñu leneen ci xadis bi d'ailleurs amul kenn ci ñi nga xam ne ñooy asxaabu kutubu sitta koo xamante ne indi na xadis bi ba pare lim def sardu ak sardul asma maanaam lim tur yi ba al imam at-Tirmidhi rahimahullah ci riwaya bi ak al imam Ibn majah rahimahullah ci riwaya bi nga xamante ne moom la ñëw inshallah allahu taala léegi mu ne mu ne mu tek ci ne wala na'lamu fi kabir shay'in min ar riwayat lahu isnadun sahihun dhikra al-asma'i illa fi hadha al-hadith xamuñu lu bari manam façon waxit la manam lu reuy ci ay ni solo wax hadith bi boo xamante ne am na càllale boo xamante ne bu wér la boo xam ne dañ ciy tudd tur yi tudd leen maanaam ci xadis bi maanaam kon loolu moom mooy xadis bi maanaam loolu li muy tekki mooy xamuñu ko amul loolu moom moo leen xarib bi mu li mu jubluwoon ci xarib bi mooy daif maanaam xarib lu tumuraanke la mooy lu étrange la mm-hmm. parce lu tax parce xam-xam bu commencé bu commencé nekk loo xamante ne euh, bariwul maanaam nit ñi xamuñu ko rek loolu day daal day daal nekk loo xamante ne lu étrange la maanaam te loolu ni mu nekkee ci xam-xamu euh, yu profane yi comme ni ñu koy waxee noonu la nekkee ci xam-xamu diini maanaam mooy loo xamante ne kenn rek a ko xam moom rek a koy wax maanaam mooy xam-xam yi li ñuy wax laa wax li ñi nga xam ne dañ koy nettali kenn rek loolu li muy tekki mooy jar naa def attention. comme li imam Malik doon wax ak imam Ahmad ibn Hanbal dañ ko daan moytandiku loolu nit ñi def leen attention loolu leen di dégg ni bu fekkente ne da ngeen koy dégg mu nekk lu tumaranke rek moytandiku leen xam-xam parce que bu wéree day siiw voilà tey benn waaye mënul ñëw su sous prétexte rek que ni mathématicien la et que jàng na ci université sangam wala sàngam di wax loo xam ne ci mathématique kenn xam maanaam walla bokk muy ñëw di nettali ci droit wala ci loo xam ne kenn mus koo dégg loolu li muy tegtale muy wérul li mu wax voilà mën naa gën a aay nag ñi mu nekkal wax leen lu mu xamul lu ñooñu xamul mais loo xam ne kenn xamu ko léegi <laughs> voilà loo xamante ne maanaam loolu moom moo tax doy na ci lii wane ne wax wérul maanaam muy xadis wala ab àtte wala yu mel mooy ne nga maanaam wax jooju wax maanaam kenn rek xam ko wala kenn rek di ko wax maanaam mu nekk ci benn téere kese voilà wala boog buñ ko laajee spécialiste yu domaine boñ ba mu ba mu concerné comme kuy wax ci siira loo xam ne buñ ko xoolee ci téere yi siira yi duñ ko ci gis loolu day tegtale na wéru voilà comme ay ay ay yent bi sallallahu ba mu doon euh, dëkki euh, ci ci ay dund ay ramli ci la ci la xàmmee weene ci la xamee ne eh, nu mu tudd ci la ci la xamee ne yoon bii la nangam nangam ak yu mel noonu wala boog benn waay bu ko doon def moo leen xamal ne xaw ma ñu ngi leen topp wala xam fàtte naa nañ lañ parce que nekkul ci téere yi yi maanaam lépp maanaam wala ngay wax ci fiq loo xamante ne nga génne nga wax wax ci loo xamante ne maanaam bu ñu xoolee téere fiq yi amu ci téere fiq yu mag yi yaatal mbir yépp nga xool yëpp xool ngir yi téere yi bind yi gisoo ko ci li muy tekki mooy loolu wax jooju wérul wala loo xamante ne dañ naan ab xadis la mais téere xadis yëpp boo ñu fa demee duñ ko ca gis dañuy xam ne loolu moom du xadis voilà dégg nga mu ne waqad rawaa Adamu ibn Abi Iyas benn sëriñ la muy Adamu ibn Abi Iyas sëriñu ñoom seen sëriñ la ñoom muy sëriñ ñoom imam Bukhari rahmatullah moom mu ne moom soloon na xadis bi hadal xadis mu ne bi isnaadin ghayri hada ci cyallale bu bokut bi an abi hurayra mu jeul ci sayna abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam mu jeul ko ci yonent sallallahu alayhi wasallam mu wa zakara fihi al asma mu tuddu ci ay tur mu ne waaye wa laysa lahu isnaadun sahih waaye amul ay càll amul càll lu wér nga ne limam mam Tirmidhi la wax rahimahullahu ta'ala après mu indi benen hadith mu ne xaddathana ibnu abi umar ibnu abi umar hadathana sufyan ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna rahmahu allah mom moy noonu noonu lañ ko wax loolu moom yaakaar naa nañ ko tudd hmm, muy sëriñu Màkk sëriñu waa Màkk moo nekkoon Màkk maanaam ah, jamono yi ñoom imam Malik moo nekkoon sëriñu waa Màkk an Abi mooy mooy kon gi ñu waxoon sànq anil A'raj an Abi Hurayra radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi man ahsaahaa daxalal yàlla am na juróom-ñeenti fukki tuur ak juróom-ñeent ku ko peeg ku ko mokkal dem àjjana dugg àjjana voilà qaala mu وليس في هذا الحديث ذكر الاسماء في حديث بي دونو في توري توري من قال وهذا حديث حسن صحيح حديث في حديث لو خامل بو باخ لا تير مانام بو باخ باخ مانام حسن صحيح كوم ولا إيه، امام الترمذي موي فار دي يوتيليزي جارو بو من رواه ابو اليمان ابو اليمان صلو نكو عن شعيب ابن ابي حمزه مجلكو تي ابو من عن ابي الزناد من تام ولم يذكر فيه الاسماء موم تام تودو تي توري كون xadis bi ñi wiir ñi ko soloo ñëpp tudd ñu ci tur bi. Euh, mais am na lu ñuy wax foofu maanaam al-Walid Muslim bi nga xamante ne moom moom moo soloo xadis bi ba pare tudd tur yi euh, rahimahullah moom ku la ku la mais euh, du ne imaam Bukhari wa imaam Muslim rahmatullah dañoo jàpp ni wérut moo tax tudd ñu. Euh, moo tax tudduñu tudduñu maanaam indiwuñu seen xadis bi waaye dañu gis ne euh, moom daf ko ne idraaj la maanaam idraaj mooy mudraj la mooy li dal wax ci jotaayu rimaax bi baas maanaam mooy benn kenn ku nekk ci caalale gi maanaam moom ci boppam moo ci yokk tur yii en commentaire ci waxu yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxu yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu noonu ak ittiraab gi ittiraab gi moom mooy le fait que mu am ay ay lu lëbëjoo mooy ñuy nettali léeg-léeg ñu nettalee ko nii léeg-léeg ñu nettalee ko nee ak yeneen ak yeneen yi wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxiwu ko noonu moo tax borom xam-xam yëpp rahmatullahi alayhim d'accord nañ ci ne maanaam borom xam-xam xadiis yi lay nañ ci ne yonent bi sallallahu ko nii et que le fait que al-Walid ibn Muslim rahimahullah wér moo tax imam an-Nawawi rahimahullah daal ne xadiis bi xadiisun xasan la waaye ànd ak loolu yëpp ànd ak loolu yëpp li ëpp ci borom xam-xam rahmatullahi am dañu wax ne xadis bi maanaam wérut hmm. dañu wax ne xadis bi wérut mais par contre xaw nañu d'accord sur le sur le nombre 99. non loolu yéen bi moo ko wax saa saa moo tax ñu d'accord ñoo tax ñu d'accord cité par contre cité voilà ci lañu wute voilà léegi après ginnaaw loolu li waaye al imam ibnu Maaja rahimahullah moom mooy lii moom mi ngi ko indi ci baabu asmaillahi azza wa jalla buntu turu yàlla yi moom màgg na tedd na mu ne xaddasanaa abu bakar ibn abi shayba kooku yàgg nañ ko waaw ñu ko dégg Abu Bakar ibn Abi Shayba borom musannaf bi sër sëriñ mu ne qaala xaddathana Abdatu ibnu Suleymaan moom mu ne an Muhammad ibnu Amran mu jële ko ci Muhammad ibnu Amran mu jële ko ci Abu Salama ah hmm, moom mu ne an Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala bu jëlee ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala mu ne qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha daxalal janna kon moom mooy li ñu waxoon sànq maanaam ci ci riwaaya boobu la moom xadis bi wér na waaye mu indi beneen ci ci saasi mu ne xaddasanaa Hisham ibn Ammar mu ne qaala xaddasanaa Abdul Malik ibn Muhammad as-San'ani qaala xaddasanaa Abul Munzir ibn عن عن المنذر زهير ibn Muhammad at-Tamimi voilà pro kii bi nag ci kii la kii moo solo riwaaya moo solo xadis boobu su maanaam riwaaya bi ci kii la la la la la idraaj bi ne maanaam maanaam moo def mu daraj moo def commentaire Zuhayr ibn Muhammad at-Tamimi qaala mu ne qaala haddathana Muusa ibn Uqba ah Muusa ibn Uqba moom tamit jamonoy imaam Maalik la dund biir Madinatu Munawwara d'ailleurs téere siira moom moo njëkk bind téere siira ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam avant ñom imam Abu Ishaq manam mom mo jitu ñom imam Malik dok astaghfirullah manam mo leen jitu ben génération mom mu ne qala hadathani Abdurrahman al-A'raj al-A'raj moy moy Abdurrahman waxon nañ ne al-A'raj non la tuddu Abdurrahman ibn hurmus al-A'raj moy ko moy moy moy ko lag ku lafa di lool moy al-A'raj motax comme dafa lafa moo motax ñu gënon ñu ko daan wax al-A'raj motax mu gëna siwe siiwee voilà mais euh, moom euh, moom sëriñu ñoom sëriñu Imaam Maalik la ba pare dañuy wax ne càllale mi ñu bokk ne moom am nañuy wax ne moo gën a dëgër ci càllale maanaam moom lu mu soloo jële ko ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala moo gën a dëgër ci lépp loo xamante ne soloo nañ ko jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam voilà Euh, an Abi Hurayra maanaam euh, lii maanaam exemple la bu bëgguñu ci taxaw ak yooyu mais moom lañ daan wax maanaam yaakaar naa mos nañ ko souligner ci jotaayu Bulughul Maram yi souligner ko tam ci jotaayu Rimah voilà mais euh, ñun diine la yoo xamante ne ñu xam amul musuñoo xam ay différenciation entre nit ñi parce que dañu am handicap wala couleur de peau wala yooyu loolu amul voilà parce que ñi ñu xam ñu bari ñoo xamante ne ay ponkal lañ te kenn mënul tudd xam-xamu tey te boolewu leen ci te lu dul ci seen xam-xam faw day jaar ci ñoom xam-xamu ñëpp nag faw day jaar ci ñoom mooy ku demee nekke eh, ku demee nekk al araj bi ku demee nekk al amash mooy Sulaymaan ibn Mihraan al amash maanaam ndax moom bët yi moo amoon ay ay eh, ay laas daan génnee laas fu mu toll mm-hmm. ah, ah, ku demee nekk Ataa ibn Abi Rabaah nga xamantene mom dafa boole woon nekk paralysie paralysie moteur ba paré nekkoon genre mm, tungu ne genre tungune ba paré nekkoon ko xamantene yaram bi dafa amone wala ay ay wala ay ay kii yu bëri euh, et cetera donc ak ñeneen ñu bari bari lañ ñu bari bëri lañ voilà qatada xataada nga xamantene mom moom dafa silmaxa woon te d'ailleurs sax te silmaxa dafa yeggoon ci ne sax manam mom fi place bi bët di nekk sax daanaka amu ko woon et cetera ak ñeneen ak ñeneen maanaam ñu duñu jeex ñu xaaj te kenn musu leen marginalisé mais musuñu imaginer loolu ñoom ay sëriñu gaa yi lañ woon cest à seen jamono ñoom lañ xamoon comme en tant que sëriñu mag yi donc loolu ñun ñun xamuñu problème boobu ah. bu voilà di ko fi kenn indi voilà dégg nga léegi <laughs> dégg nga kon an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala nee na. inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yahmul witra man hafizaha dakhala al janna lii mooy li ñu waxoon ah ba para da ci teg ne waxiye te ñoy lan mooy allahu alwaxidu alsamadu al awalu al axiru alzahiru albatinu alxaaliqu albaari'u almusawiru almaliku alxaqu السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعالي الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرؤوف آه، الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز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 manam mu dal koy lim yoy qala Zuhair Zuhair ne manam waxon nañ ko sax Zuhair ibn Muhammad bobu ñu doon wax sax mu ne qala mu ne fa balaghana an ghayri wahid min ahli al ilm an awwalaha yuftahu bi qawli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu bi yadihi al khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah lahu lahul asmaa'ul husna manam mu ne jote nañu jële ci ñeen ke ku ki ben du ñaar lool non la arab yo ghayru wahid manam luddul ben du ñaar ci ay boroomi xam-xam ño xamne dañu nan tour yi kat li len tàmbali manam ni len di tambale moy ne dañ nan la ilaha illa allaahu wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahul hamdu bi yadihi alxayru wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allaahu lahul asmaul husna manam non lañ len di tambale kon buñu xolé dinañ gis ne kon mom li wax li wax yoyu dañ ni manam buñu xolé tour yi nak dinañ setlu ne amna yu bare bare yo xamantene dañuy nek fe duñu nek fi fii wala mel non légui mu ne al-Hafiz ibn Hajar légui nu wala légui léegi dañoo jël al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah li wax ci Fathul Bari mi sharh Sahih Imam Bukhari hadith yi wax nan yàlla manam witr la manam yàlla amna na 99 tur yi xadis yooyu moom daf ci am commentaire yu ci def ci yo xamantene dañ gissone ne dana doon na am solo ñu génne ko dafa imam at-Tabarani solo na même hadith bi jëlee ko ci Abu Zur'ata ad-Dimashqi mu jëlee ko ci Safwan ibn Salih moy fi ñu doon wax ci kaw mu ne waaye wuute na ci ay cal ci ay xadis ci ay tur yu bari maanaam nga gis ñu bari yu baree bari wuute nañ ci moom dafa ne moom imam at-Tabarani bi mu solowee xadis bi yii la indi al-qa'imu au lieu al-qabidu ak al-basitu ak ash-shadidu au rashidu maanaam Euh, alqaa'imu daa'imu au lieu de bokk astaghfirullah alqaa'imu daa'imu au lieu de alqaabidu ak albasitu ak ashadidu au lieu de alrashidu ak al a'la al muhiitu maliki yawmiddin au lieu de alwadudu almajidu alhakim mu ne ci ibnu Hibbaan ibnu Hibbaan tamit rahimahullah soloo na ko jële ci alxasan ibnu Sufyaan mu jële ko ci Safwaan boobu ba tey daa di solowee mais alraafi'u au lieu de almaani'u hmm? ci Sahih ibn khuzaimah rahimahullah riwaya safwan bin ñu wax batay amna yenn tour yu ñu wute ndax dafa ni al hakim au lieu de al hakim ba pare daal al qarib au lieu de raqib ba pare daal wax al mawla au lieu de al wali daal ni al ahad au lieu de al almughni euh amna riwaya imam al Bayhaqi rahimahullah ak imaam Ibn mandah ak imam ibnu mandah rahmatullah alayhima ñom ci ci yoonu musa ibn Ayyub mu jële ko ci al-Walid moy hadith imam at-Tirmidhi bi bobu manam bi ñu doon yi ñu doon wax legi ni yi imam Hafiz doon wax ibn Hajar rahimahullah moy hadithu ibn Maaja bi mais fii xadiisu imam at-Tirmidhi rahimahullah bi ñu wax sank bobu mom dafa ni euh dafa ni al-Mughiis moom la indi moom imaam al yi ci riwaayam al-Mughith au lieu de al euh, bu ñu xoolee bon loolu euh, amaan na dinañ ci ñëwaat ci dinañ ko tëjee parce que comme waxtu yi mu ngi dem euh, al tamit maanaam bi mu solo ci Zuhayr ibn Muhammad ci riwaayam mu jëlee ko ci Abu Zinad am na 24 tours yu mu wuute tamit ba tey ci ci toftale ci ci bi mi imaam Bayhaqi solo rahimahullah ndax dafa wax manam kon euh moy al alfattaahu al alxakamu al alxasibu al almuxsi al almuqaddimu al albarru al almugni al alsabuuru al alquduusu al alxafiizu al alwaasiu almaajidu maalikul mulki zul jalaali wal ikraam yii nga xamante ne mooy ci xadis bu nekk si imaam Tirmisi bi mu doon wax rahimahullah imaam Bayhaqi bi daf ko solo mais place bii la ci def maanaam tur yi yëpp muy 24 tur yi yenen 24 la fi def yu bokut ak yoy te moy ar-rabb al fard al kafi ad-da'im al qahir al mubin au lieu de al matin al mubin as-sadiq al jamil al badi al qadim al bar al wafi al burhan ash-shadid al waqi al qadir al hafiz al adil al mu'ti al alim al ahad al abad al witr zul maanaam yii boo ko xoolee am na ci yoo xam ne ñëw na ci riwaaya Ibnu Maajah bi rahmatullah alayhi maanaam kon dañuy gis ne kon ni affaire bi yent bi waxu ci dara salaasam parce que bu ci waxoon dara munul nekk différence yi munul réy nii loolu mooy ittirab gi ñu doon wax sànq mooy lëbëjoo gi et que euh, et que euh, même xadis bi la ñoom ñëpp ñu soloo ko ci Abu Hurayra radiyallahu anhu ba pare ñoom ñëpp ñu nekk ay ñu mokkal ak yu mel noonu ba pare ñoom da gis ci seen yenn wax yi dañuy préciser ni am na suñu sëriñ ay suñuy sëriñ ay boroomi xam-xam yu ñu dégg ñuy wax ni ñu nettalee nii wala yu mel noonu ci la ñuy xamee ni du du du du du waxu yent bi sallallahu alayhi euh, mais riwaaya bi ci gën a siiw mooy bi njëkk bi njëkk tudd mooy bi imaam at-Tirmidhi bi rahimahullah boobu nag euh, buñ ko xoolee allahu daf koo compter comme benn tur moom allahu daf koo compter comme benn tur riwaya bi nga xamantene mom la imam Abdul Karim al-Jili radiyallahu ta'ala indi ci al-Kamaalaat kamalat fi sifaatil fi al muhammadiyya mom al mughis la def au lieu de al muqit d'ailleurs bim koy sharh al mughis la ko sharhawé mais riwaya bobu en fait amana mom nuskha bi mu yoron manam moy copie bi yoron ci sunan imam at-Tirmidhi rahmalahu mo amone peut-être mention bobu mais euh, nusxa yi nga xam ne ñoo yi siiw te ñu tasaaro ci su maanaam mooy copie yi siiw te tasaaro ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah al muqiitu la ñu bind beneen problème bi beneen mbir bi nga xamante ne kon jar na ki mooy moom euh, kon riwaaya bi mu yor huwa la tàmbalee daan ni huwa allahu rahmaanu rahiimu malikul qudduusu salaamu mu'minu et cetera euh, ci kaw loolu kon moom dafa compter yooyu nonu mu konté mom en fait bo ci bolé moy 97 la am 97 bo ci bolé huwa ak allah muy 90 muy 99 euh lolu lako sharxawe buñu xolé euh ëpp nak ci ñu sharxa akibi manam al asmaul husna te ñom ñoy ku mel imam a a a imam euh imam al ghazali rahmatullah alayhi ci téereem bobu nga xamne mom moom la tuddee al maqsadul asna fi sharh asmaillah al husna téere bobu mom daf ko sharhawé ci solo riwaya ban riwaya imam at-Tirmidhi bii nii rahimahullah ndax mom moy bi gëna wér moy li gëna wér ci buntu bi ndax moom boroom xam-xam yi dañuy naatable ndax wér na wala wérut moom lañ la wax ne imam an-Nawawi rahimahullah daf ne xadisul riwaya bi ba pare tamit buñu xolé ni borom bis manam ni alquran toftale mbiri ci suratul xashr nonu lako toftale ci njàlbéen gi baax na imaam al imaam al qurtubi tamit non la niki non ci al asna fi sharh asmaillah husna niki non buñu xolé imam imaam al imam al qushayri al imaam abdul karim al. abul qasim moom abul qasim al kushay al kushayri rahimahullah moom ci at taxbiiru wa tafkiir sharh asmaa illahi al husna ci téere boobu moom nii la ko moom tamit yii la sharha mais daf koo tàmbalee ci allahu ak laa ilaha illa huwa maanaam kon bu ñu xoolee yooyu lañ maanaam da ngay gis kenn ku ci nekk li mu sharha bokkut ak moromam amma ci comme par exemple bu ñu xoolee téere bu mel ni Taysiir Seex Hajj Maalik Si radiyallahu ta'ala anhu bu ñu xoolee riwaaya imaam at-Tirmidhi bi rahimahullah la indi waaye boolewut waaye jëlul lépp dafa am benn partie bu mu jël am benn partie bu mu bàyyi. bu ñu xoolee partie bi nga xamante ne moom la jël mooy daanaka lépp ba mu des Allahu bi nga xamante ne imaam at-Tirmidhi rahimahullah moom ci riwaaya bii daf koo boole daf koo boole ci tur yi ci 99 bi alors que Allah en bokkul ci 99 bi. ndax allah mo ëmb 99 yeb comme niñ ko xamé inshallah dañ ci ñëw ci buñ ko ishara kon allah bokku ci d'ailleurs buñ naan allah amna ay tour man lillah lillahi na allah ay tour 99 moy allah bokku ci euh et que voilà et que kon 99 yoy kon yenen la buñu xolé xoolee nonu bo len leen boole ci bolé allah dañuy gis na amna benn bu ñëwut te bu am solo la boo xamante ne moom mooy allah mooy mooy euh, al waax axadu maanaam au lieu de al waaxidul axadu maanaam moom al waaxidu ak al axadu mais moom mais ci xadis bi riwaayo boobu amul al al amul axadu Seydina Hadj Malick Sy nag radiyallahu ta'ala anhu moom yokk na ci axadu boobu al axadu ci taysir bi non nu mu ko waxee euh, al voilà kabiru yaa muta'aalil waa waahidun ahadun ah maane maanaam bu ñu xoolee loolu dañuy gis ne maanaam diggante waaxid ak axad maanaam ñaari martaba yi ni ñu wuutewee comme ni ñu ko waxee leerale ci axadiyya gi ak waaxidiyya gi maanaam ci maraati bi bu ñu xoolee ni mu wuutee dañuy gis ne indi gi mu indi axad ci dafa dafa ràññeeku et que Malik la ñuy wax ndax al alquran moom la indi Allahu rahmaanu rahiimu maliku la indi comme ni ko alquran indi loolu moom moo tax moom lañ doon wax ci euh, jotaay bi paase ci daayira bi ne bu ñuy jàng tey siir bu ñu neen yàllaahu rahmaanu yaa rahiimu du yaa maaliku mais yaa maliku la maanaam ñu indi xadis boobu maliku lañu indi ndax alquran maliku la tudd rahmaanu rahim daan huwa allahul ah انه هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن آه، آه، آه، عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك لو كون الملك لا نيوخ القدوس سلام اي اتسترا كون روايه بوبو لول تاميت لير ا تي ني كون الملك لا ندي دونت مانا مانام ديني دوجنتي مومك مالك اك مالك اتسترا يوي دانتي نييو ان شاء الله تعالى بو نيتي تور بوبو Euh, kon bu ñu xoolee am na benn waaqia boo xamante ne euh, euh, dañ cee gisoon Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu ñu mu toog di ko laaj tay siiram bi fekk boobu jamono jooju am ñu ngi doon wala dañu doon juste doog a pare sharxa tay siir bi amoon ay question ñu ci amoon di walla lan moo ci ci euh, copie yi ñuy gis lan moo ci wéeru lu ci wéeru et euh, bi ma ñëwee mu toog ma laaj ko ne ko laaj ko euh, baat bu nekk ci taysiir lan moo ci lan moo ci maanaam ni ko partie bi nan lañ koy waxee lii nan la et mu tontu maanaam yi ma ci jaaxaloon daal mm-hmm. walla yi nga xamante ne dama ci amul dut Euh, après ma laaj ko ne ko lan moo tax gis naa ne lu tax indiwuloo riwaaya sunan at-Tirmidhi bi euh, rahimahullah yëpp mu ne ma c'est dama jàpp ne wér na moo tax voilà voilà maanaam mais ànd ak loolu yëpp gis nañ ni maanaam li mu ci dindi mooy ak rit maanaam euh, li mu ci complété maanaam kon wuutewul ak yeneen boroom xam-xam yi wala bokk nitu yàlla yu mag yi li ci ëpp ci nuñ ko indee mais fi ñu fi mu wutee rek moy le fait que moom mu yokk ci al ahad bobu nga xamante ne te gis nañu lu gis nañu ni lolu raisonnable gis nañu ni lolu raisonnable manam ni al ahad hein ni mu amee valeur bobu voilà par rapport ak euh, manam ni mu wuuteeg ak waaxidu parce que imam al-Ghazali rahimahullah par exemple da fay wax ne ci ci ci ci masala bobu ne. Euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim léeg-léeg dañuy wax waaxidu kese te duñ dugal ahad wala ñu indi ahad kese te duñ indi waaxidu maanaam ñuy sarxa asmaullahi alhusna te li koy waral suuf parfois mooy mooy mooy le fait ñu jàpp ne maanaam maanaam bi benn la maanaam le fait que moom ni mu waxee sax loolu ngay comprendre maanaam ne moom dafa jàpp ne maanaam bi benn la waaye gis nañ ne maanaam bi du benn voilà. et ñuy wax comme maaliku ak maliku lu tax benn bi di mën a remplacer moroomam loolu tamit am na parce que ci alxuraan ñooy remplaçante ndax fi ñuy jàng malik yow mi diin mën nañ fa jàng maalik yow mi diin waaye euh, euh, euh, mais ci alwaahid ak ahad moom nuroo demut demut maanaam dañuy gis kon maanaam foofu noonu moo tax nag ñun tamit insha allah ci sharh bi ñu def ni dañ koy dañuy ci kii bi xasida bi insha allah tur yi ni ñu leen di sardoo noonu maanaam kon foofu la ñu daje ni ñu leen di indee mooy dañ leen di indi selon ni mu ñëwee ci xadis boobu donte maanaam ndax ndax ndax lan ndax dëppoo gi mu dëppoo ak le fet ko borom xam-xam yëpp yëpp yëpp yëpp rahmatullah alayhim maanaam wala boog li ci ëpp ci borom xam-xam yi nitu yàlla yu mag ñu mag a mag ku mel ne euh, euh, comme ñu tudd sànq imam al-Ghazali Sayyid Abdul Karim al-Jili euh, Sayyidi al imam Euh, Abul Qasim al-Qushayri euh, ak euh, al imam ak al-Qurtubi rahmatullah ala al-jami' imam Abu Abdullah al-Qurtubi maanaam ñoom ñi ak ñeneen ñoom riwaayo boobu malgré que xam nañ ne maanaam malgré que gis nañ gis nañ ne riwaayo boobu moom maanaam 99 yooyu quand même yu yu kii lañ yu yu dëgër lañ maanaam et que mënef na leen a jàppee 99 ni yooyu ñooy 99 bi malgré que masala ijtihaadiyya la Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala ni ñu ko indee noonu boobu tamit kon ci la ñuy sukkandikoo maanaam mais ci riwaaya mais maanaam maanaam foofu ñun kon lenn rek lañ fay def mooy ne dinañu dinañ njëkkee huwa dinañ njëkk a wax Allah donte ñoom ñaar boo bokkuñu ci 99 waaye daañu leen indi ngir seenug solo ngir seenug solo daañu leen indi huwa ak Allahu waaye ci biir bu ñu nekkee ci euh, waaxidu ak axalu tamit dinañ wax dinañ wax ahad dinañ tudd dinañ tuddaale bu al ahad voilà insha allah taala voilà euh, ci ci ci ci kaw loolu kon xam naa insha allah ñu mën nañoo daal di yëg ci jotaay bi kon jotaay bii ñëw insha allah dañuy daal di commencer dañuy daal di attaquer nag léegi mm. <laughs> directement huwa euh, bi mais dañu teniroon pour jeexal ko au moins euh, maanaam introduction bi ñu jeexal ko ci jotaay bi ni doonte jël nañ quelques minutes après mais ñu jeexal ko kon ñu yam foofu insha allah